bu lañ doon célébrer bis bu ñu jagleel cuisine italien loolu moo tax tey Alfi li muy togg euh, Italie la ko jëlee mais du am ci poole. du am ci poole Pape Cheikh waaye dina am li nga xam ne mooy mozzarella euh, mënoon naaj sax def ci poole parce que benn keek salé la ñuy togg keek salé boo xamante ni dina bëri bagage. lépp loo xamante ni Italie la fekk baax ku ne cuisine italien xam ni mooy xeetu cuisine yu neex yooyu nga xamante ni Pape limite danga naan euh, Sénégal la jógee entre euh, tagliatelle li nga xam ne mooy euh, sauce bolognaise mozzarella beneen ba lasagne waaw xeetu neex-neex yooyu nga xamante ni Italie la fekk baax donc tey dañ ciy dem jëli quelques yoo xamante ni moom la ñuy mijoter ci benn keek salé boo xamante ni comme classique gu keek yi ñuy faral di defar dina am am nen dina am dëwlin mais au lieu de dëwlin bi pourquoi pas ñu jël suñu beurre bocage yi nga xamante ni moom lañ fi am riche en goût li ñu beurre di jox moom la ñu euh, dëwlin di jox donc euh, changer recette bi daal ciy def beurre bocage bi nga xamante ni c'est riche en goût noonu sax petit tegee angle bi ma teg sama casserole bu ndaw bi nga xam ni juste pour mën a seeyal beurre bocage moo tax ma andi ko ñuy dagg toll ci gram grammes euh, mi ngoog nga xamante ni découpe bi dafay yomb daal di koy def ci casserole bi bàyyi mu seey donc bu seeyee nag ñu mu daal di ñëw euh, euh, fekk si yeneen éléments yi nga xam ni moom la ñuy soxla pour mën a réaliser crêpe euh, cake bi nga xam ne saveur italienne lañ ciy def ku ne xam na ni beurre bocage buñ ko utiliser wul buñ ko utiliser ba pare ci ndekki bi tartiner ko suñu ay mburu dañuy jël Euh, li des ci beurre bi daal di koy yóbbu ci waañ bi pour mën a mijoter euh, ay plats sucrés ay plats salés comme ni ñu koy faral di defee fii yeewu leen laata beurre bi di seey mën nañu jàll ci li nga xam ne moom mooy euh, réalisation pâte bi dañuy toj nen pour mën a am base bi nga xam ni moom mooy ñëw defar cake bi donc il nous en faut trois moom la ñuy jël def ko ci saladier bi laataa ñuy jël yeneen éléments yi am naa fi from saucisse saucisson sec bu dend moom mooy ñëw remplacer euh, yeneen xeetu charcuterie yi nga xam ne dafa fekk baax itali mais malheureusement dafay nekk por yu ñu mënul euh, utiliser moo tax ñu remplacer ko par euh, saucisse de dend donc am naa fi tuuti pignon de pain ku ne xam na ni pignon de pain yi bokk na ci classique u ingrédients italiens yi olive vert ak li nga xamante ni moom mooy fromage mozzarella mozzarella ak fromage hmm, tourba fromage fromage italien la. Euh, sax da ngay wax ba sa xel mi xaw a dem anyway ñu xorom nen bi donc bu ñu defee tuuti xorom waa da ci baax perturbe xam nga léeg booy def booy def élément boo amul lii da ngay noonu la donc ñu jël tuuti thym def ci biir boo amul tuuti concentration dangay ngay perturber donc ñu jël tuuti thym def ci pour mu andi benn goût boo xamante ni moom mooy relever épices yi et puis jël éléments yi nga xam ne moom la ñuy waaj a def euh, ci ci euh, ci cake cake bi parmesan mi ngoog ñëw na donc parmigiano nga xamante ni moom bokk na ci fromage yi saf xorom yi nga xam ne c'est en goût gis nga xorom bi limite tuuti lañ ci def donc parmesan moom moo nekk nii ci biir euh, sachet bi donc moom itam dafay ñëw dem ci euh, cake bi donc mu nekk cake yoo xamante ni c'est très très facile à réaliser mais goût bi mi ngi fi mu nekk goût yoo xamante ni soo koy lekk daf lay fàttali Italie nga xamante ni ñoom fexe nañu ba seen cuisine euh, Pape mi ngi koy wax keroog mu nekk lu ñëpp reconnaître ci biir ci monde bi entre pizza nga xamante ne xale yëpp moom la ñu bëgg euh, spaghetti bolognaise lasagne xeetu togg yooyu nga xamante ne dafa fekk baax Italie panna cotta mu nekk dessert bu neex boo xamante ni moom it euh, fekk na baax euh, Italie donc li may def petit mooy que damay jël beurre bi mu ñëw fekk si nen bi donc ñu def si et puis yëngal directement mu matière grasse yi ku ne xam na ni xam nañ ni moom mooy euh, génne Euh, goût yi nga xam ne moom la euh, euh, keek di am donc am naa fi farine ak levure bu ma mélangé donc moom itam dafay dem ci biir ñu tamiser ko juste pour dini grumeaux yi nga xam ni moom la ñuy faral di am ci ci ci farine au fur et à mesure ñuy def farine bi dañuy yëngal laataa ñuy jël li nga xam ne moom mooy yeneen éléments yi mu ñëw fekk si ko lenn la ñu warul def mooy que yëngal bu baax bu ñu xasee ba def farine bi parce que dañuy développer élasticité bi nga xam ne moom la farine yi di di faral di am pour mën a am ay textures yu croquant limite dañuy yëngal tuuti rek ba nga xamante ni euh, farine bi jaxasoo na ak nen bi ñu daal di koy arrêté et puis on continue mélanger donc on le tout laataa ñuy ñëw def ci ingrédients yi nga xam ni moom la ñu wax léegi moom la ñu lim léegi ci euh, plan de travail bi mi ngoog c'est fait léegi mën na baax ñu dindi euh, fouet bi daal di jël nag li nga xam ne moom mooy marise bi pour mën a continuer cuisson bi donc fuuru Sobel Kitchen bi moo fay noonu parce que dañ ci doon lakk beneen keek boo xamante ni jot naa defar benn exemple ci suba xam nga boo nee euh, cuisine moderne xam ne mooy cuisine yi Sobel Kitchen andi fii ci plateau bi donc mu am yenn mode de cuisson yoo xamante ni c'est idéal pour mën a saaf ay euh, keek yu mel nii donc moom dinaa ci ñëw euh, léegi ñu jël fromage parmesan bi def ci biir moom laa la wax léegi mu dafa nekk fromage boo xamante ne dafa am goût dafa saf donc moom tam dafa ñuy daf ñuy permettre ñu am benn goût boo xamante ni euh, moom moo ñuy moom moo ñuy permettre ñu mën a voyager à travers les les papilles donc euh, mozzarella bi moom it mu ñëw dem ci ku ne xam na ni mozzarella mooy fromage bi faral di dem ci pizza yi donc dafa am ñaar boo xamante ni salaat moo ko tax a jóg ak beneen boo xamante ni euh, pour genre recette yu mel nii la donc ñu jël jambon saucisse bi saucisse de dinde bi moom it mu ñëw dem ci biir et jël olive bi olive bi nga xamante ni moom mooy euh, ñëw anditam euh, benn touche euh, italienne et puis def tuuti pignon de pain de pain mooy andi effet croustillant bi tout le temps dama koy wax lu mooy la toujours foog mu daje ak lu croustillant pour nga mën a am neex-neex yooyu nga xamante ni moom la lekk yi di ñu jox en général et puis on mélange le tout donc délicatement on mélange le tout di jaxase saucisse bi jaxase fromage yi nga xam ne moom la ñu daggat léegi daal di jaxase olive bi mi ngoog de pain bi moom it ñëw jaxasoo ba ñu am quelque chose boo xamante ni euh, lu lu lu uniforme la waaw mi ngoog lu uniforme pat bi ñëw jaxasoo ak bagage yi nga xamante ni limite ñoom ñoo ëpp sax pat bi et puis ñu chemiser sunu euh, moule bi nga xam ne moom mooy ñëw dem ci euh, fouru Sobel Kitchen yi def ci papier cuisson pour mën a am benn démoulage bu assez facile loolu tam dafay baax pour ñu wax ko et puis ñu daal di jël pat bi def ko ci biir petit donc nii lay demee et puis di enfourner euh, vingt jàpp vingt cinq minutes ça dépend ci say four bu fekkee fouru Sobel Kitchen yi nga xam ne moom la ñu am temps de cuisson bi du yàgg parce que euh, noonu lañ looloo looloo tax ñu defar ko pour gagner du temps dañ ko def dañ ko concevoir de telle sorte que da ngay am cuisson bu uniforme ba pare du yàgg euh, benn yoon donc mi ngoog petit on va enfourner le tout pendant vingt jàpp vingt cinq minutes ngoog et puis bu génnee ñu am résultat bi nga xam ne moom lañu am ci plan de travail bi on va découper le tout et puis lekk ko pour xool ndax dinañu am guuwu Italie boobu nga xamante ni moom la ñu moom la ñu moom la ñu wax léegi fromage mi ngi ni croûté ci kaw hyper croustillant et puis bu ñu ko daggee am texture bu mooy le pape ci noonu la ñuy déguster jàllee ci dégustation euh, privée bi cake euh, à la au saveur euh, italienne bi nga xamante ni moom la Boy Bocage andi tey